macha allah wàllub ñaan. Mm-hmm. xanaa mos nga cee am bis boo xamante ni da bis boo dul fàtte. koo xamante maa ngi gën a sant yàlla ci ñaan. Mm. mooy bi may ànd ak papa Sow. waaw loolu yàgg na moo tax damay wax ne journaliste Sénégal souvent dañuy fàtte papa Sow maa ko daan yóbbu ci géew. yow mi yaa daan ànd ak moom. maa ko daan yóbbu ba ci biir géew. mais yàlla moo dogal ma tukki. moom bokk na ci ñi tax nit ñi xam ma ci ñaan yàlla na yàlla jàppale ko. Papa Sow waaw. ci ñaan ñaan yan combat nga nga mujjee maa ko yóbbu ci kàttanu yàlla bi muy bëre ak Boy Sey mooy après contre Modou Lo. yóbbu ko contre Bac Seras. bi mu ci tournoi bi. waaw yóbbu ko contre Bac mu daan Bac Seras ko contre Zos. mu daan Zos yóbbu ko contre Tonnerre. mu daan yàlla def ñu am jiixi jaaxam ak moom. Mm-hmm. werante mm-hmm. mu dem yàlla def nees daan ko mm-hmm. te ba ko nees di daan wax naa ko parce que dama ko gént ma ne ko yaa ngi ma mere te moo ne soo demee ànduñu yàlla mën naa dogal leneen mais booba xam nga nit bu meree rek mais comme c'est un frère yàlla dogal mu dem yàlla def la gën yàlla boolewaat nu ñu àndaat demaat daanaat zos mooy retour ba. waaw retour ba. stade Iba Mar la Demba Diop. la ma ca neex mooy dama daan wax barke baaba kër Sy. Hmm. day daan bu nu duggee noonu la ko yàllay dogale. boobu foo ko doon teg. ci kàttanu yàlla da ko daan gis ba mu leer wala daa dama am seet goo xam ne sunu borom moo ma ko dem dimbalee. Hmm. ak gént. Hmm. tey su ma tëddoon yàlla won ma ne ma cheikh mii suba la say bis di jeex bu ma xëyee damay jëndi perkaal. waaw loolu sunu borom yàlla moo ma ko may. te foofu loo fa xool rek. lu ma yàlla may ci gént. bu ma la ko waxee booy boo takk teg loolu la ko yàlla lay defee Sénégal gii bi may wax dina jël coupe d'Afrique. Hmm. booba fubaluguñ. booba maa nga ca États-Unis desoon na deux mois. am naa ay vidéo yu ne sama Facebook saak match Sénégal dama daan wax match bi nii ak nii la ko yàlla di dogale. sarax sàngam sàngam sàngam. dinañ ñëw ci match bi. waaw dañuy toogaat ci làmb. waaw dama la bëgg a wax dama la leeral rek. Mm. ci kër bu boo boo bi nga jógee ci Papa Sow. Mm-hmm. am na yeneen mbër yoo daan ñaanal actuellement nii. waaw ba ba léegi yaa ngi ñaanal mbëri wala da ngaa bàyyi mbëri ba. ma benn mbër laay ñaanal fi mu toll nii. benn mbër. sama doom la sama xarit la sama soppe la. mbër mi. waaw muy sëriñ jaay mm. sama xarit la sama soppe la. moom dong laay ñaanal fi tool toll nii. Hmm. te ragaluma ko nag moom laay ñaanal moom Serigne Ndiaye 2. kese waaw fi tool toll nii tembe moom la ma yàlla booleel ndax moom la ma kilifaam dénk. bu beneen mbër ñëwaatoon doo ko ñaanal. bari nañu ma ñaanal de ci làmb ji ba ci rëg-rëg mii xamante nañ. rëg-rëg mii xamante nañ ñoom ñëpp xam nañ ma. ay bi waaye. Hmm? Ah. jën woowu nga gis ma yóbbu ko ci làmb ji. Ah. dumbul daan naa ko mu daan daan bëri. dumbul bu Grand Yoff. waaw ah, dumbul bu Yoff dumbul dumbul bu Yoff. ci la daan daan booy boobu maa ngi dëkk Yoff. mais sëñ bi jën boobu tamit est-ce duñ ko xoolaat sëñ bi jën bi ni muy yàqoo. garaaw na jën bu mag. waaw daa am tur wu ñuy làq ci biir jën wi. xam nga am na yonent bu jën won noonu. waaw. la mu doon wax ca biir foofa ba yàquwul moom la ñuy làq ca jën wa ba doo daan mër bi kon jën bi secret moom ko tax a jóg. secret ko tax a jóg du ay caaxaan. kon jën boobu su noppee kenn du ko lekk. non non dañ koy lewatal rek jox ko leneen xaj man na ko lekk leneen mën na ko lekk. mais nit moom mënu koo lekk. waa nit du ko lekk parce que la dugal ci biir jën du ko lekkaat waaw te ñaari yi dañ koo xam bu wér baatin ñaar yii dañ koo gëstu. Hmm. dañoo gëstu bu ñuul gëstu bu weex. buñ ci neex laal nag buñ la xoolee li sa li sa mbir rawxaan laaj rek ñu liggéeyal la ko. bu ñuul ak bu weex. waaw actuellement ci làmb mbër yi fi mu toll nii ku ci nekk day day day day day yëngu ci wàllu mystique. Mhm. bu baax a baax a baax dem fu ne. Mhm. dugal lu ne ci làmb ñuy gis mbëri di takk tey sëñ bi boo toogee ci télé bi di seetaan mbër yi mën ngaa xam ban mbër moo ëpp gàllaaj lii daan mbër mi du agsi ci làmb ji. du ñëw li ci ëpp muslaay la. yu mbëri di sangoog yi ñuy takk. li ci la ak mu musal la ci cat làmmiñ yooyu rek. mais am na loo xam ne tey su ma ko bindalee mbër Papa Sow boo seetloo am na jamono yoo xam ne mbër moom ne cocc mu naaj. am na loo xam ne su ma ko bindalee nga koy raxas sa loxo di ko séndal ci taal une semaine avant combat bi foo dóor mu naaj. Hmm. Mhm. dàkk ndaama yii di takk. yii hmm. mbër yi takk ñi ko ci mën bariwul de. dàkk ak ndaam. waaw bi ñuy takk ah, fii. ci dënn bari na ñu koy bind lan lay bindal du tus. secret la. ñun de ubbi nañ fi téere mbër arène nationale. Mhm. père Max Mbargane sax jamaïcain moo ko for ñu ngi mhm. taxaw mu dagg ko jox ko per Max Mbargane bi ñu ko ubbee calendrier lañ fa fekk. waaye décembre xaw ma janvier février. loolu tamit daa mel ni. bërki démb fekk naa benn soxna. Mhm. yàlla du ma tudd maa nga Amérique. ñu jël benn boppu bëy jël ay këyit laxas ko dugg ko ci biir gémmiñu bëy bi laxas bëy wee laxas laxas ndaw si kii ko bi mu ko kii am wax ma ko ma ne ko tekki leen ko ñu tekki ko bi ma ko wanee ñu foto ko ma xool xaatim bi dara newu ca ñu nax ka joxe xaalisam ñu xaatimal ko. Mm-hmm. tooñ kër giñ ko indi mu mënoon a indi problème ñu foog ne nit ay liggéey waa kër gi fekk du tus sëriñ si dagal leen yàlla loo xamul xamoo ko. Sénégal bari na ñuy jiiñ ne Macky Sall. Hmm. Macky Sall liggéeyul ñun ñoo liggéeyul ndax ñun ñoo triant ñun sénégalais yi. laaj ma lu tax. xam nga réew mii ci li ñu fekkee faruma kenn nag. Hmm. ci li ñu fekkee. Hmm. jamonoy Senghor. réew mi melul woon nii. déedéet jamonoy Abdou Diouf réew mi melul woon nii. déedéet jamonoy Abdoulaye Wade am na nu meloon mais yokku na. ak njàmbaar bu ko nit defee da nga ko waaw góor waaye kat diwa ma neex waaye hmm. dafoo tus kenn du ko wax nit. Hmm. est-ce que dégg ma bëgg a wax. dégg naa bu baax fi moom la yàlla dénk réew mi nay sóor ne jamono nga ca ginnaaw yàlla dénk ko ko woon ñi mu ko dénkagulit nañu sóor ne bisa ngi ñëw fi mu toog dañ fi toog te ñeneen a koy soxla. suñ bi daal maanaam yaa ngi confirmé ni benn ndombal tànk du laal suuf. waaw bu nit tekki rek nit a ko takk. nit a ko takk te kala ko takkal yàlla la te du fi jóg. <laughs> moo tax lu waaye di def rek. saay dëgg na nga sóor yàlla moo tax ma indil la numéro boobu composé la ci yàlla. Mm-hmm. ma la bëgg a wax ne la douze mois mooy douze. mooy douze mois. waaw douze mooy douze mois. Mm-hmm. mooy at mi. Mm-hmm. trente jours mooy weer wi. vingt quatre soo ko boolee soixante-six la lay jox mooy allah soo jëlee six plus six douze la lay jox benn bi allah la axat la yàlla moo kennal boppam deux bi un plus un égale mooy onze huwa kan la muhammad kenn du yàlla ci yonentam bi loo fi roy lu dul jikko ja yonent ba làmboo woon nax nga sa bopp moo tax nit ku ne da ngaa war am jikkoy sang que tu sois président que tu sois menuisier que tu sois mécanicien da nga war a roy jikkoy sang bañ a fen di wax dëgg gëm yàlla doyloo ko te muy dëgg ci yow looloo manqué réew mi. Mhm. Cheikh bi wàllub ñaan. Mhm. bu nit ñëwoon actuellement. Mhm. bëgg kayit. war tukki fu mu dugal mu dëgër. mën nga koo ñaanal ba moom kayit. waa kayit jafewul. ah sëñ bi jafe na ci la. ndax sa biddiw ànd làmboo naag nga tukki. Hmm. tey nit dem na ci sëriñ damaa bëgg tukki damaa bëgg tukki man nit ñëw na ci man. jamono daan na ñëw sama kër ñuy toog tey ma nga Amérique ginnaaw yàlla ci sama kat ci kàttanam ci sama jëmm ju tuuti ju xeebu jii la yàlla dogale mu dugg Amérique. Hmm. bi mu njëkkee ñëw dama ko ne jotagul daf mu mere ma. ma ñaanal ko mu dem itali yàggu fa yàlla def mu ñibbisiwaat. ma am lu ma ko bindal mu nekk fii di gagné ay marché liggéey bi dox lool. Hmm. li may wax caméra laa koy waxee mën na ko dégg te xam na ma. Hmm. mais du ma tudd turam parce que mu ko tuddee ñit ñi ragal ma. Hmm. parce que ki soxla ba ñëw ci yow bëggul siiw. loolu nag mooy erreur sëriñ su bari. bari dañuy wax de. waaw parce que léegi lu nu defal nit na maa ñaanal diw. te ñaanaloo ko danga koo ñaani woon yàlla. moom laay wax dama ne ñi naan géwal ci Sénégal dañoo dañoo dañuy dañuy ñu ñu leen di wax ñuy tëgg ka fecc dañoo xamul seen cër. Hmm. ku yàlla may nga dib géwal sang nga. parce que ki nga war a ñaan yàlla la ñun ñëpp géwal lan te yàlla nuy may. Hmm. mais nit tey xeeb boppam doyadal ko. fekk hmm. warul doyadi. dëgg la. yaa ngi may dégg. doomu aadama ñun ñëpp ci 66 boobu lan tënku te dinaa la wan li tax. yaa ngi dégg. biñ ko ñaanalee mu tukki yàlla dogal na mu dem ñëwaat bi mu ñëwaatee bi biñ ko bindalee ay sangan mu sangu fii la wërsëgam ubbi ko bi jamono ñëwee tukkeem jot dafa dem ma nga États-Unis tey du caageenu kut ko kut tey ñaanama ma tukki ñaanal wërsëg ñaanal sutura d'abord ak gudd fan. gars yi ñuy ñëw ci yow ñu ci bari day am li leen tax a jóg kii. Mhm. day def bag mhm. bëgg a am. Mhm. Eh, ñaanal ma am bac. waaw loolu wa saabixuuna saabixuuna ko man. wa saabixuuna saabixuun rek dafa am lim boo koy bind bu dee koy def bac bu dee koy def euh, entrée en sixième yooyu dafa gaaw c'est vite fait loolu yàlla dañ ci defal sutura lu bari sax. Hmm. loolu moom yàlla am na lu ñu ci xamal. ka nekk bitim réew bëgg kayit mu jafe loolu ci moom. waa kooku këyitu Amérique wala këyitu feneen. Hmm. dafa am secret boo koy jaar loo gis ne dafa am secret. baatin moom laa lay wax nee naa la. ñaan xawma da cee bokk. Hmm. mais xawma googu boo déggee ma la koy wax mooy du caageenu xawma lan laay ñaan. Hmm. mais xam ne yow xamoo yàllaa xam. nga nangul yàlla cëram pour yàlla man laa nangul li nga ko soxla. Hmm. mais nit ñi da naan li ma defal diw. li ma ñaan li ma wax maa ko may diw. mayoo kenn yàllaa maye. dëgg la est-ce que dégg nga ma. dëgg waaw nit ñi nag suufeeg delloo yàlla lim moom moo leen jafe. mais yooyu yëpp jëfante nañ ci nit ay nit ay yoon yoon yoon wàllu Amérique ay wàllu këyit ñaan ci nit pour yàlla may ko këyit ñaanal nit pour mu sëy yooyu jafewul. ñaata ngay seetee. seet. Hmm. fi mu toll nii tembe daaw ma ko fayu. waaye léegi ku ma joxul ñaari junni du ma leen seetal. ah sëñ bi nag dëkk bi fi mu toll. laaj ma lu tax ñaari junni dafa laaj ma tax. lu tax réew mi damaa gis ñi leen di nax moo gën a yomb ñi leen di doon dëgg. te comme li ñu yor naxewul ragaluñu ko ñun ragaluñoo lebal nit ñaan. Hmm. Hmm. lebal nañu nit ba tàyyi te fayul amee fay. lebal nañu nit ba tàyyi te ku ñu siiw ci réew mi nag ñooy futbal ak nekk ci kii yi. mbëru làmb yi lebal nga leen fay. mbëru làmb yi dàqa ñàkk a fay du ñu fay dara man mbëru làmb daaw ma leen fayu dama leen daan dimbali yàlla tax rek ñu yëkkati li ñu am jox ma.